mbokk internet yi amati nañ contentement di ànd chaque jour comme ñu koy defee ci actualité li gën a fës ci mim réew la ñuy xool waaye itam li nga xamante ne jamono gii actualité ci Sénégal gis nañ ko waaye balaa dara dañuy souhaiter une bonne fête à toute la communauté chrétienne ndaxte li nga xamante ne mooy Noël doon fête boo xam ne dafa spécial donc chaque décembre ñoom dañ koy amal waaye tey suñu actualité dañ koy door rek ki nga xamante ni euh, moo di euh, mbër boobu di wuyoo ci turu Issa Pouye ñàkk way juróom bu jigéen fële sa caaro ñu koy ñaanal yàlla yërëm ko te xaare ko ne uh, firsa firdawsi uh, ba tey uh, ki nga xamante ni itam mooy ndaw ab tout tànk boobee nga xamante ni moo ñàkk ba kenam fële nga xamante ni moo di ca Guet Ndar gannaaw ba ko ab bus daal di koy fële ba noppi nag a ñu ñuy xamal ne xale boobu jarbaatu ki nga xamante ni la mooy Fatou Thiam député du jabar Mam Mame Gor Diazaka gi nak mbir mi mën nañ japp ni mi ngi ci loxo yon ndax yoon a ngi ciy xuus maire de Thiès Talla Sylla nag jamono gi dal né rejoindre son excellence monsieur Macky Sall président de la république déeta way dal nakoy nommé li nga xamanteni moy conseil spécial du président de la république ci gatal ma nga ci wétam suñu mbokk naataango yooyu di Dakar ak ci ñooñu ñukoy xamlé donc ñu gis né jamono gi ki nga xamanteni modi moo ak Idrissa Seck ñom ñaar ñëpp nekk ci camp ki nga xamanteni modi son excellence Casamance ni ma leen ko doon waxee dernière minute daal dina koy fal ci li nga xamante ni moo jëm ci nguur gi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni gannaaw naka ni bërki démb ba mu demee fële nga xamante ni moo di ci Touba TV Touba TV ci plateau spécial boobee nga xamante ne ko doon amal kennal Serigne Bamba gis ngeen ko noonu surprise la daal di dikkee ci plateau bi déeta waaye mu daal di fay aalu ba tur fa ay xéewal yéemu ca daal dinay def itam déclaration li nga xamante ni actualité mim réew waaye itam wax na ci li nga xamante ne jamono gi nag ñi ngi ko doon jiiñ lu ci ëpp nag wax na waaye li ñuy wax saa su ne mënta wax lépp ci benn fan deeta waaye ba tax na rendez-vous le premier janvier incha allah mu fas yéene jàkkaarloo képp koo xamante ne taskatu xibaar nga Ndiogou Afia mi ngi noonu daal dinay takk li nga xamante ni mooy ñaareel elle se nomme Oumou gis ngeen ko noonu mu nekk xale bu macha allah di leen ñaanal sëy bu barkeel ñoom ñaara Carlou di itam mi ngi souhaité un joyeux Noël képp koo xamante ne fan sam nga leen ko ci pulaar ba tey li nga xamante ne moo jëm ci wàllu sitting yi ñoom ñi nga xamante ñoo yëngu ci li nga xamante moo jëm ci wàllum culture rek pour ñu am lu ñu def ci seen poche ba tey imam boo xamante itam ab sénégalais la waaye itam mu nga jóge fële nga xamante ne mooy ci États-Unis moo ñëw fële moo di Touba ziar xalif général des mourides Serigne ko noonu en image mu nekk loo xamante ne rek macha allah li ñuy wax saa su di ko ziar si rawatina imam bi bàyyeeku fële nga xamante ni moo di ci États-Unis joyeux Noël lañ leen di wax képp koo xamante ne jamono gii yaa ngi koy juddu képp bokk ci li nga xamante ni mooy ah, suñu mbokk chrétien yi suñu mbokk natango yi ndax bu dul dara suñu mbokk lañ suñu xarit lañ def ci lak sotti ci ba tax na ñu ngi leen di souhaiter un joyeux Noël à toute la communauté chrétienne ba tay gannaaw bi Macky Sall tegee ci table bi lu toll ci deux milliards cinq cent déeta ki nga xamante nak moy mooy Bougane Gueye Dany ak DJ Awadi d'accord ci benn yoon ndax ña ngay wax di jëmaliko ci ki nga xamanteni moy ci njitu réew mi alors professeur ki nga xamanteni nak moy Cheikh Oumar Diagne itam daal dinay wax ci projet boobee nga xamanteni moy mooy City nee ñi ko projet ñi ko financé ay gor jigen lañ ay lobby lañ ak yeneen ak yeneen donc kon buñ ko bàyyilee mu taxawal projet boobee nga xamante ne mi ngi koy waaj a def fii ci Sénégal waaye fële ca Mbodiène dina doon loo xamante ne danger la ci réew mi professeur Cheikh Oumar Diagne nag moo koy xamle mu na projet boobu ñi ko financé ay góor jigéen lañu dernière minute Adrame Ndiaye ancien lion du basket itam daal dinay génn àdduna fële ca France li ko yóbbu nag du lenn lu dul li nga xamante ni mooy mbas mi gis nañ deuxième vague bi ampleur bi nga xamante ne am na ko ci mim réew xanaa kay di ko suñu borom yërëm ko te xaare ko aljanay Firdausi, nakani demb mo moo ganu 2 TV, jeyla moom itam mu don xale bu mun way waye yemu ci dafa joylo ki nga xamantene moy nday ndak ndaag ba finalement daa mujjee genn plateau bi ndax ci li nga xamantene mi ngi koy def ak mun wayam Serigne Modou Kara itam daal dikat wax lu am solo jëmale ko ci ki nga xamantene moy Macky Sall neena na Macky Sall wowe lam ko wowe bam bako Macky Sall wowe lam ko wax len la ñun ñepp eh, waron dem kaso amul ma samba amul ma demba te itam am nañ firnde ne incha premier janvier dinañ ci gëna am ay leeral bu mel Noël jotee nag dañuy gis suñu jiitu réew dañuy gis ni nga xamante ni mooy leader yi ku ci nekk da ngay daal di def ab message baaxe leen ko ba tax na ki nga xamante ni Idrissa Seck daal dina koy def message boo xamante ne daf leen di jaajëfal waaye itam di leen saagar dañuy dem fële nga xamante moy ci ca gis ngeen nonu ki nga xamante moy le nouveau DG décision yi nga xamante ne jël na ko fa mu nekk ay décision yo xamante amna solo lol ni ma len ko don waxe décision yi nga xamante ne jël na alors jamono gi nag kep ko xamante dang fa nek ki nga xamante moy mooy Maguette Sène le nouveau DG itam dal di ñuy jël ay matukaay yu mat seuk kep ko xamante jamono gi yaangi ngi amo contrat à durée indéterminée yaakaar naa ne sa nekkin foofu dañ ko fay xolaat ci li nga xamante mo jëm ci cadre liggéey bi ci wàllum budget bi ak ci wàllum finance dépense bi mu doon loo xamante ne jamono gii nag ak deuxième vague euh, bi nga xamante moo di mbas mi waaye teewul ba tey leader yi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi ñu ngi jël li nga xamante ni moo di seen matukaay chef de l'opposition nag tey daa daal di génn àdduna fële ca Mali muy euh, Soumaïla Cissé donc daal dina génn àdduna lu ko nag du lenn lu dul li nga xamante ni mooy mbas mi donc mën nañ jàpp tey moom mooy actualité phare ndax fépp foo ubbi ci réseaux sociaux moom ngay gis seede rafet na ndaxte gis nañ li nga xamante def na ko fële ca Mali ci jëm ci wàllum wàllum démocratie wàllum kóolute waaye itam firndeel gi mu amoon ci askan wi yaakaar naa ni tey leer na xanaa kay di ko ñaanal suñu borom yërëm ko waaye itam xaare ko arjanay firdawsi ñi rek lay demee chaque jour wàllum actualité tey suñu actualité lépp dañ koy daal di tënk ci li nga xamante ni mooy Noël di leen souhaiter une bonne fête de Noël di ñaan yàlla 2021 dak 2020 waaye itam yàlla defal ni ci ay xéewal lépp loo xamante ne doomu aadama bëgg na ko ci yàlla na ko suñu borom defal ndam cant ngeureum ñeel na leen et bonne fête de Noël. car instant rek ya ma gëna xam. man xawma ci kaw lañ juggé man dama jé saa rek gis leen ba paré fo tourner Dakar instant ngay gis. mais lolo ëpp na Dakar instant ci kaw ci kanam rek. wa ah Dakar instant dal gis na sen caméra bi ni mutti mi ni xamna ni bari na doole trop ba mënuma xol bu baax dama pis pis di patch patchal ni wa Dakar instant ma ngi dama leen di suivre ci page sen page YouTube dal wa Dakar instant mom bo xolé ñom sen tour rek. day chaque instant c'est le bonheur. monsieur le maire loo wax ci Dakar instant. wow c'est une première mais ni ma gisee Dakar instant Il faut prouver que Dakar instant ci kanam la jëm incha Les gars ñu sommes koy suivre Dakar instant lan leen laay wax na gars yi dem abonné loolu bëgg si actualité ñëw leen si Dakar instant. C'est sa liggéey rafet na trop macha allah. Mbacke loo wax ci waa Dakar instant. Dakar instant nag moom ñoom dañoo xew.